sunu collègue bobu nek mbuur ñu ngi koy ñaanal natt boobu tegu ci kawam mu tegeeku ko waaye du dal mooy tax ne ñu ne jàngalekat EPS yëpp loolu natt boobu ko dal dal na leen ndax lu tolloog fukki at ak juróom-ñaar maa ngi koy jàngale ak samay naataango yi ñu koy jàngale te yàlla ñu dolli sutura loolu daluñu benn sëb nag benn benn pompiteer bu yàqu bi parce que duñ ko fa xaar kon bu ne EPS bi ñu jàngale bu bu benn waaye defee faute ndax nit dong la doomu aadama la am na am na am na am na côté yu baax am na côté yu bon li ko dal ñu ngi koy ñaan mu teggeeku waaye amul luñ ciy yëy amul luñ ciy yàbbi beneen bi ci des maanaam ñàkk ñàkk a weg wala ñàkk jox fulla ak fayda bi nga xamante ne moom nga jàpp ne EPS dañ ko koy jox ci bi ñu reprise ci mbas mi loolu man gisuma ko noonu ndaxte sunu camarade bi toog le camarade Cheikh Diop bi ñu waxantee maak moom téléphone ma wax ko situation EPS ni ñu ko bàyyee bedd ko ci ginnaaw ci li nga xam ne mooy mbas mi bi ñu tàmbaliwaatee jàngale bi mu jël téléphone am woo le ministre Mamadou Talla ñu régler problème bi te dégguñ ci xat damu wala ñu dégg ci coow loolu mooy wane ne kon ñun bunt bi ñu fëgg bunt bu baax la benn benn benn jàngat boobu rek tax na ñun am nañ yaakaar ne sunu li ñu àndandoo bi yàlla dana ci def barke mu jëm kanam